Euh, maa ngi tudd Enja euh, nekk artiste styliste donc euh, démarré suma carrière depuis 2001. rapport bi nga xamante ne moo nekk entre làmb ak musique rapport de jeunesse la parce que musique jeune moo koy def làmb aussi jeune moo koy def. mais boo weesoo aspect jeunesse boobu am na beneen aspect boo xam te nañ ko am en commun mooy l' aspect entertainment donc euh, aspect bi nga xamante ni mooy aspect entertainment bi nekk ci làmb maanaam mooy booy xool làmb mbër buy dugg dañ koy tëggal donc bu ñu ko tëggalee mu fecc nga xool aussi que ni musique ki koy def aussi dafay woy di fecc donc je crois que loolu aussi bokk na ci li nga xamante ne moom la am en dénominateur commun de ce fait que il la jeunesse il y a l'aspect divertissement il aussi un autre aspect mooy aspect maanaam li nga xamante ne mooy développement parce que jeune bu nekk bëgg nga développé wu ci gox bi nga nekk ba ñu ràññee la te loolu moo nekk ci musique loolu moo nekk ci làmb donc je crois que ñetti point yooyu daal laa gis ne am nañ ko de commun combat bi ma gën a marqué ci sama àddina mooy komba Zos ak Bala Diouf parce que man amateur lamb laa damay dem stade maa ngi ànd ak sama benn copain bu ñuy wax Mbay Saw Mbay Saw bu fekkee mi ngi seetaan lii de du ma bàyyi ma fenn ñëpp fi ñu tegoon ñëpp ni Bala Diouf de daan Zos te maa ngi faral Zos quoi parce que Zos suma xarit la xam nga moom suma waay la quoi dafa yàgg donc bi ñu bëree. bari bi seeraanuma ko dama taf sama bët quoi parce que bëgg moon gis defet bi ma jig saa rek dégg ay yuuxu ma ma ma laajte ku daan ñu ma sos moo daan rek ma dóor ki ma àndaloon dama ko dóor bu mu këpp léegi mu nekk ñaari victoire quoi <laughs> parce que Zos daan na waa yi man daan naa sama copain bi parce que gëmoo ne Zos dina daan waa ji quoi parce que ak rumeur yi xam nga ñëpp nan Balla Diouf da koy daan ñu ñëw ba ci stade bi xam nga Zos daan waa ji. loolu moom je man li ma ciy wax affaire u bi mooy lamb dafa mériter plus qu'un arène lamb au Sénégal dafa mériter plus qu'un arène dafa war ay arène tey waroon na fekk ñuy compter arène naan arène bi ak arène bi ak arène bi parce que lamb mérité na loolu ci ñaari fànn laa koy waxee première bi mooy boo gisee làmb li mu sauvé ci jeunesse quoi tey ñëpp am nañ benn rêve que mën a nekk comme. Balla Gaye mën na nekk comme Lac de Guiers mën na nekk comme Eumeu Sène wala comme xam nga dawal oto bu rafet te booy xool ci seen doole lañ ko amee sàccuñu ko ñaanuñu ko dañ ko ñafe xam nga ba am ko quoi donc je crois tey le gouvernement sénégalais liñ leen war a delloo mooy ñu jox leen arène nationale ay arène nationale je loolu mooy yoon loolu lu làmb mérité beneen bi mooy tey boo xoolee. un lutteur comme Modou nga gis li muy def en dehors de la lutte muy làmb et éducation moom mu reconnaître que ni jàngul mais tey dina jàppale ay xale di leen ñaax pour ñu jàng. waaw ni mu ko gisee mooy euh, euh, c'est un geste très noble c'est un geste très noble je crois que. ama euh, Lac de Guiers moo ko njëkk def ak Eumeu seen bi ko Eumeu Sène daane mu ñëw félicité ko encouragé ko Malick Niang defaat ko am na yenn mbër yu bëri yu may gis ñu koy def loolu du lenn lu dul sportivité xam nga donc euh, je crois que c'est très important c'est très important des fois mbër yi di wane genre message boobu xam nga bu ñu la daanee nga xam ne man je suis un sportif métti na defet benn defet neexul mais nga xam ne euh, ni la yàlla daan mayee ndam. tey noonu la maye nga ñàkk donc boo ñàkkee rek après xam nga sante ko yàlla nga xam ne lii nii nii lu waroon lu gën ci yow rek nga jóg féliciter sa adversaire après ngeen ànduloo ko dem bu ko defee loolu dafa am lu muy joué ci euh, supporter yi xam nga mais buñ la daanoo nga siisu jóg xam nga xëpp suuf xam nga supporter yi aussi noonu la ñuy mais buñ la gisee yow mi nga xam te ne yaay mbër mi nga def geste boobu noonu je crois que dinañ leen xaw a apaiser par rapport ak défaite bi quoi donc c'est un geste que je que passage.